borom nasuru waxal sa wax kay jariñ bu dul ko nag sa wax kan dunu tekki dara walaay borom sa wax kay waaw bu dul ko nag sa wax kan kan jàlloo rafet sa jëf ji rafet borom nasuru laa waay yaay sunu bu sëriñ walaay kan jàlloo waaw sa wax kay aw ah, waaw bu dul kon nag sa wax kan dunu teg kan jàlloo rafet bu sa jëf je rafet borom nasuru laa waay yaay sunu bu sëriñ walaay sëñ Asan waxa waaw sawa xeet a ah, waaw bodol ko nagge sawa kan donu kan jàlloo rafet sa jëf jee rafet borom nasrullah waay yaay sunu bu wallaay waaw sa wax kay aw budul kan dunu tekki dara kan jàlloo rafet sa jëf jee rafet budul ko nak sa jëf duñu tekki dara wallaay waaw sa wax kay waaw bu dul kon nag sa wax kan dunu te kan rafet sa jëf jee borom nasuru laa yaay sunu bu sëriñ walaay sëñ as waaw waaw waaw kan dunu tekki det kan yaay sunu bu sëriñ waay xal nga penc tabax juma samp fa daara borom nasuru la waay yaay sunu bu sëriñ walaay kan jàllo borom nasuru la waay yaay sunu xale nga penc yow tabax juma sampu fa daara nasuru laa waay ay sunu bu sëriñ walaay nasuru laa waay ay xala nga penc yow tabax juma sampu fa borom nasuru laa waay yaay sunu bu sëriñ hawaaw borom nasuru laa waay yaay sunu xala nga penc yow tabax juma sampu fa borom Nasrullah waay yaay sunu bu sëriñ walaay waaw waaw borom Nasrullah waay yaay sunu bu xal nga penc yow tabax nga samp fa daara borom Nasrullah waay yaay sunu bu sëriñ walaay waaw waaw borom nasru laay yaay sunu aduna yaa ko moom yawmal xiyaam yaw yaay borom borom nasru laay yaay sunu bu sëriñ walaay borom nasru laay yaay sunu bu aduna yaa ko moom yow mal xiyaam yow yaay borom aduna yaa ko moom yow mal xiyaam yow yaay borom aduna yaa ko moom yow mal xiyaam yow yaay borom borom Nasru la yaay sunu bu sëriñ wallaay waaw waaw sa jëf je ah waaw borom yaay sunu aduna yaa ko moom yow mal xiyaam yaay borom borom nasiru laa waay yaay sunu bu sëriñ walaay waaw waaw waaw baayu Seex Aliw kan baayu sëñ Xadim kan sanjileek Mustafa yaay sunu bu wallaay waawaaw waawaaw borom nasrul awaay yaay sunu bu sëriñ baayu Seex Aliw kan baayu Sëñ Xadim kan baayu seex ji leeg Mustafa yaay sunu sëriñ walaay walaay waaw borom nasuru yaay sunu bu sëriñ dama koy dama kii nii te pare gut munu àndandoo maag yéen santati sunu borom tabaraka wa taala te ci yonent bi alayhi salaatu wa ñoo ngi leen di nuyooti te bu baax a baax di wax nan ànd nun ñëpp wax alhamdulillahi ala kulli haalin suma salaatu wasalaam ala sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa mu mel ni jataay bi xaw naa jël temps tuuti waaye lépp bëgg lu baax rek a tax ñi fi daje te doone waxkat ku nekk daa bokk ci teraangaam nga may ko mu wax buñ waxee ba noppi dem ñu def ci suñ liggéey di ko liggéey yàlla na nu yàlla dimbali ba nga xam ni kuy ñëw ku ne nanga nu fi fekk bu dem jotee boo jógee bàyyi na fi nu continuer loolu yi am solo la ku tedd ka waxoon bis rek daa wax ni boo amee programme ni heure tel laa koy def diw sàngam lay xaar na nga ca teg am farata ju toll nii la nga décider <coughs> bu la ci kenn jëlee ndax koo xam ni daa ñëw ca programme ba ni nu gaaw def ko boog balaa waxtu sàngama jot ndax suma ma noppee dama bëgg dem barab sàngam waxoon naa leen fii ni boobaa na ngeen ko ni nan la ñaanal nga yeewee ko ndax su sensé sa programme it doo ci am la nga bëgg te nga doon xaar bu ñëween gaa ca fekk la ci toujours na ngeen na ngeen sax ci foofu naa ngi wax sërif mi yàlla na ko yàlla musal ci ndox ak cat nag yàlla ko yàlla dimbali suba ak rek yàlla boole na ma moom ci gént ba xëyee laa ko woolu ne ko nanga ma wuy si taxaw waat la ñun ñëpp nan ko ñaanal te encouragé ko mu xam fi mu jëm mbolo mi ak mi seigne kharim yore Doa waxtan wi nak. waaye dama fuma jëm rek laax la ci taxal ba fu taxaw fu ne bu waré wax na nga wax na la yalla musal ba nga mëna wax mi xassidé seigne touba ak ci kars ñu koy ñaan ci barke seigne touba lutax ma wax loolu dem amoo benn programme boo xam ne bu jotoon ñi nga ñoo bàyyi fi yow dangay toog da ngay toog nun bu jotee nga xaar ba noppi da nga ko sëñ xaalis boo jëm ne ko acca tan ñaanal mu mucc moom fu lay li mu yor li la bàyyi seex cun mais di faral di wax na ko jàpp te téye ko imaam taala ngeen jàpp ci loolu mu taxawu ko moom mi mën naa doon jànkatu kër gi manes na laa mat nag waaye dàquñu la li ñuy def da góor góorgóorlu lool lool ci maxaarijul xuruuf bi danga ci bàyyi xel nga xam ne nekk sa kanam loo xam ne ca la jëm yàlla nga ca egg bàyyi Baay Faal ji bii ñëw na fi tey sens bi ko yàlla defal mooy depuis sëñ Aliou Kan muy lu ndaw ba sëñ Mor ñëw quarante six ans ba sëñ Mor génn ci ba sëñ Souley ñëw ñu ñu fekk na fi moom fa mu tegoon tànkam teggi wu fa moo tax boo xoolee jëmm ja ngay xam ne jëmm ji boo waxee lim man jëmm ji amul poids bi waaye daa am ndimbal sëñ bi da koo ñaanaloon ngor googa na la topp sa baay bii ngor a fii mu ne Pape Dieng fële ca taax kaw la dëkk topp maa tax mu ñëw na soxla am na fu la ci toll nii noddam ji ak taxaw ak jàkkaam ji moom yow na ko lenn ngir fu sëñ Asan jëm rek laa jëm moom la ëpp mukk suñ ko defee tuuti ci kanam di nga mën lu mu moom di nga dem fu mu demut di nga xam loo xamul man nag loolu sëñ bi ñaanaloon na ma ko waaye dem naa fu koo xam ne kenn ko sant kan démul ci ay réew yu dul Sénégal bii xam naa it loo xam ni ku sant kan ñi ko xam bëriwul te loolu ñaan gu nangu la man man na maa yem fi ñëpp yem képp xam ne xam képp waaye kun dimbali nga raw kala dimbali wala fay wax ne kun turgoom tungoom sa bopp nga sut sa kala tungoom waaw ku sa bàyyi tungoom nga sut ko loolay di wér waaye nag yàlla na nga ci am fula bu boobaa yàlla nga am fula ndax am fulay tax nga egg foofu kon jataay bi na nga ko fonk fonk gu toll ni ku ñëw na la fekk ku dem bàyyi la fi loolu mooy li fi ne sëñ Xaadim mi wax na ko ci vocal fan yi yónnee ma ko danoo mënta dem fenn noonu fii rek lan mën a am koo xam ne ka nga mën naa dem toog ba mu yàgg mu dem yow mu mënta dem xamal sa bopp loolu leen am solo léeg nga gis ko ci mbooloo mi gi nga mer sekk mi ba mu ne salaamaaleykum saa sa ak léegi ma ngeen xamoon ca pas-pas ba ba léegi mooy dox boo déggee bàyyi Cheikh mi do foofu lay waxee ba sos yii daa bari yëpp yëngu lool bu fi ne am ñu bari lool ñu fi ne fi ne pas-pas rek a foofu lay waxe nii fi ne moo tax xorom gii muy def nii sax yëngalu ma dama ci ree ndax xam naa fa muy waxe loolu rek la Fall yow bëgg lu baax rek a tax ngay wax kon baarakal la jërë ngeen jëf li ma taxoon jóg rek modi di farlu ci khidmatul khadim bi ma ngi soñu sama bop di soñu ku ne ci nun ku fi teew ku teewul ci bolo bi fonk jaamu yalla gi ndax motax yalla sakku lenen lutax yalla sakku ab jaamu amu te ndigli se dara yalla dara lu don mën lolo, doon jarul loolu ndax lu mu mën doon lu netax nga ni négliger li yalla bëgg da nga xey bis ñak loola ba loola ñàkkal yalla nek fi nekkon nga dem ba ben moment bëgg ñu suñu borom doyal dara jaru ko fi la leen waxe ajuma waji amon febar bu metti lool te kaani teg ko ba waxe sëñ Aliou da ko wax ne ko lila jaral ba nga mel nga mel nga koy teel a xëyal di ko guddee wàccal su la ko yàlla jaralee mu defal la lu gën di la kaani defal loolu yéen am mag ñi gis nga ni ñuy tontoo hmm? loolu mooy li fi nekk kon nan yàlla gënal tout loolu ñu seep ñu def fop teg ko ci ginaaw bu ñu bëggee yàlla ba noppi loolu nekk suñ ginaaw àdduna ak li ci biiram buñ ko def ci suñ biiri xol nan ko def ci suñuy loxo nga xam ne bu tàqale koog ñoom ñoom ñoom jotee jotee day yomb dañ foofu yàlla képp mi nga xam ne mën noo tàggoog moom def ko suñu biir xol bu dee alal la na yem ci loxo yi bu dee ay matériel na ci loxo yi man lu ma néegu a joxe amul yàlla képp laa mënta ñàkk te suñ borom moomu nag wax naa ko ci bëccëg dafa maa wana woon ba nga xam ni lu dul yàlla mën naa laa ñàkk wax ni fi ne bu non xëccoo kër gi man bu ma bàyyi sa kurus ak sa ber du jës su ne bu ma boppee loolu ko yóbbu sama saxé ñaar yoy lu fay jëlé won dina dem si foofu rek l'affaire bi nek leneen lu mëna a doon boo ma notee bay ëpp ma doole yóbbul ba mu des bàyyi maag ber de kurus gi rek li fek ma nga and ak mom nak fu fu ne ñi mëna fa sanc ah. ndax fu ma sanc yalla fek ma ko inal ardi waasi'a fa iyyaaya fa'budun bu bi nee na sama soo si yaatu de sekk xam ba daa am sens foo nekk nekkal fa yàlla boo ko defee yàlla fekk la loolu nag ku ma mën a romb ku ne ba wàll la ko rek naa la ko moo tax ma leen di tudd loo yàlla seen borom di leen julliloo ci rasulullah alayhi salaatu ngir bëgg nu am jëmbi suñu borom yi nga xam ne li feeg yaa ngi koy yëg lenn du la déranger mooy li fi ne. te gis nga aduna wolof mo wax bat ni ku la jëk reer ku ne da lay won reeree xam nga boy dox ci jamono ba dégg ko xam japp nga ni mo la ëpp ndax mo lu uppi at xañ na li mu señ borom egg go ci dem ba nek khalif général maa ko dégg muy dem ba yag mu ne xaw ma woon dana manatu aduna ngi ci aduna Lol, yaakaar na ñun ñep deg nañ ko waaw jappon na ni sama sama dundu gi yalla dama natto nit yi àdduna yi kon limay def legi moy fete sans bopp sans borom te gënd ci ñom lan am baye te de limay wax wa yow mi natto gu loolu lo da wuti ba mon njariñ mom du ko ñak ndax niwoom ak tolwayam bu àdduna aduna diko fréquenté di wax moom muy dem ba yëg ndeket dañ may tardeel waaye kon yow loo ci wut yow mi amagul dara nan wut yàlla rek sun borom tabaraka taala te wut xaadimu rasul suñ jëwrin boo ko amee rek am nga lépp ku am ñoo xam ku leen ñàkk ñàkkoo dara am na koo xam ne ku leen am nga lépp maa la ko wax buur amul lépp ci àdduna li mu reere tey mbub bi mu sol tey oto bi mu war tey di ko ferekante ci ci heure bi loolu ku am na ko ci nun ku am na ko ci nun di fi ne mënta lekk ci ñaari biir am déet mënta tëdd ci ñaari dal mënta naan ci ñaari boli te genn googu ku ne ci nun am nga ko waaye yow fexeel ba jiit ko ci sa borom tabaaraka wa taala moo tax na ma ñëpp di ñaanal ma mucc ci pexem buur te am yàlla sun borom tabaaraka wa taala te am ngërëmam ak gaayam yu baax yi yàlla nañ ko yàlla defal nun ak yéen kese waaye fop sa leen wékku ko ci àdduna mbaa nitu ko àdduna nan ci yàlla musal nan yàlla féete fépp ba duñ soxlaal kenn ku dul yàlla dara loolu la am solo ndax yéen ñuy xooy mat ni du dara sama saal bi di leen leen leen nga toog fi kilifa diine fekk la fi dama sàkku ci yow ñaan nga dama am rendez-vous ak diw wala nga ñaanal ma ngir dama am rendez-vous ak passeport diplomatique bu ñu ma war dama la yërëm ngir man loolee ngay wax dama safut man fii mu ne tukki bi gën ci tukki yi mooy dem Màkka def naa ko man bi gën a neex ëpp valeur muy dem ma ca Kaaba ga wër ko dem dem dem seer Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku xas ba def ko ba noppi beneen tukki boo defati mu ndox waaw boo koy bëri dem naa Fass te Seex na Ahmad Tidiane ah maa ngi fàttali ko jamono xawma ñan la ci mbooloo mi waye mas nañoo dugg oto dem gir ardo ah waaw bo lay siyaar wali fu mu fu ne nga aw fa keroog dem ñan daan nañ ba deqalem siyaar wali yu bare bare bare bare nga xane bo lolo ma neex fu mu suur nit ku baax rek na fa dem loolu amna jamono ma defon ko ben wax ngir di di di siyaar li wali yi kep moma gënal seti bor yi wali wu ci tim bu ne bo xamé histoire tim gi ko tim dana la ñaax jajj la ngir fu mu ne nga jim ko fa fek ngir jema melni lolé def ne mm-hmm. kon na wut maqama te martaba mo gën yenen yi du té nak masla man fa ñak de masla waye waye deug tey deug mooy yalla ki gayam mm-hmm. yalla ñu am amin lu ñak lu ne yalla ñu am amin ah waaye lu am lu net yàlla na yàlla jiit loolu topp adduna bi daa yàgguddi léegi nu ub bunt yi fay làmp yi gaa yooyu dem ñeneen ñëw kon jaru ko fii nan farlu ci loolu bu ko defee maa ngi woowaat ñëpp ci xidmatul xadim bi mu am liggéeyal suñu borom di woowaat ñëpp ci fonk faratee suñu borom yi tabaraka wa taala yéen ñii ma àndal nga xam ni buñ doonam yonente fi ay saaba ngeen doon bunde ndee bi ngeen ay talibé bunde ndee ngeen di gaaya nu and andando rek digel sun bontor ko taala jaamu ko rek kay wër ko rek a wér ndigalam képp na ngeen ci farlu fu ngeen mën a ak fu ngeen ne la sëñ bi xey gënoo nit ñi ëppoo leen dara te bo toogee sant bu ne wër la bo xamna ko na assalamu alaykum yalla képp la ko defal sun jotaayu tey bi ñaata fi nuyu man ku ne man ko foo ko dama leen a jox paas gàttu uma leen te añ beneen cee tombe rek suñ borom ma leen rëgate foofa nga xam ne kenn ci ànd wax nga ko léegi waa ji fanaan fii ay ay nangami fan te fi sëñ bi nekk ñu toog di la xaar loo ci man te yitteem noo ko fi bay te jàpp na ni yitteem dem nasuroo ko mën a faj yàlla mi mën a defar borom nasur tàggatu jaaw mu di ko wër yàlla rek a yàlla ah ay kilomètres yu bari la daw de rombu buy dëkki dëkki dëkk waaye yaakaaram jàpp na ni prof sangam la mën a fajoo te suñu borom rek a tax yàlla na yàlla faj aajo moog ñu ne sëñ mi ku dëkk ca frontière gambi nee na nasrullahi la woon seetaan ma di ko waxtaan ci kii mu daanu ca mu ne am tàng la ci fóore la waaye ne li may jàng jàng alxuraan ma dégg bi laa bàyyi lépp lu ma def ak ku ma doon déglu fas ko yéene jàngaat ci yow soxna Marème kon fexe dégg yàlla rek am solo moo tax ma bëgg ay maftuhun alayhi yàlla nañ ko yàlla defal ñun ñëpp ñu ubbi te loolu jotaay bi mën na koo mayee de ndax fii daan noon waxee Issa Dia Nasrullah moom mu nekk ca frontière ko am di ko jàngal mu jàllale ko daggee paas foofu ñëw fi la yenn tey ngir jàngataat ko te bi ko gisee nee na njariñ li ma ci gis borom xéwal googu ngay wax noonu lu daa ñëw fii de sàkku ñaan noonu ko bu soobee suñu borom nan la may nangami fan da ngay am lu ko gën bi mu ko amee démb barkeem nañ ko nomee mu xëy indi fi teraange mu indi yàlla rek a jar a tax man suñu borom rek laa leen di xirtal yàlla képp laa leen di bëgguloo moom laa leen di toppaloo waaye adduna fi gaayam moom nañ ko traversé rek mënut a ñàkk nag ndax ku nekk adduna def di jëfi waa adduna. waaye nag yëfi àdduna ji nañ ci préparé alaxira loolu la yàlla wax wattaqa fii ma attaka laahu daarul axira waaye nag lu mën a am laa tansa nasibaka min adunia ne sàkku leen àdduna foo dëkk mënta ñàkk lu mu rafete baax na loo sol mënta ñàkk lu mu rafete baax na loo lekk mënta ñàkk lu mu neexe baax na loo xool mënta ñàkk li fekk mi ngi lay woon yàlla waaye bu mu tax nga defee ni moom la loolu da nga koy jàpp liggéeyee ko àdduna mu mu rafet moo sol liggéey jaamoo ko yalla, lekk ba suur jaamoo ko yàlla oto bu rafet jaamu ji ci yàlla image booy xool jaamoo ko yàlla waaye bu la loolu fop yow nga foofu nekk jaamu foo bu ko def bu ko def da wax ni saa yu ma solee mbubb moon wax naa ngeen dégg ko balaa ma ne ni ngeen def ni yàlla salaamaaleykum ba noppi julli ci samay rak jaamu ko ci bonop do ko ni do ko gis mo tax toujours bo may féliciter fekk na jaam na sun borom loolu lay dam solo waxon na fii ni bu ngeen démé séti jaam yalla sen borom ko mo mana don muy goor yi ak jigen ñi fexel ba rafetal li nga yor bu dé mom nga am na set bo amé lo ci xéñ xéñal ko ci ba bo kàbbaree seen borom ni xamné sama jëm jee tax nga def ni bu kenn jëm ci yalla ba pare négliger sa bopp xosoo inda masjid ay alquran kon maa ngi leen koy dénkaat di ko dégg sama bopp jaamu seen borom ku ko def ku ne di nga raw ku ko defut làmmiñ mu lépp lu muy tudd yàlla moo gën làmmiñ woo xamante ne moo ko gën a néew di yàlla rek am solo askuru nii la yàlla wax fu ngeen toll dee leen ma fu ngeen toll dee leen ma tudd fu ngeen toll dee ma xalaat fàtte yàlla sax daa ko def waxtu woo ko fàtte yéefar nga ndax ku su fàtte la ndax koo xam ne heure bu ne ay mbir ma ngi dox ci sa biir jëmm sëñ bi jëmm xool ko ni mu toll wax naa la fii ni ñetti téeméeri sidit ak ñaar fukk la ñetti téeméeri yax ak ñaar fukk boo ko boolee juróom ñaar téeméer ak ñeent fukk day mat amu ci genn sidit buy génne deret wala benn yax bu nit mën a bank mbaa mu tàllal ko bu ni suñu borom mooy wax malaaka ne ko defal ma ko nii sëñ bi jëm joo xam ne mooy contrôler ab jaamam contrôle bu toll noonu bu ko jaam ba fàtte rek gore woo gis nga gis nga gis nga fépp suuf tepp bu dugg ci bëtub mbit nga xam ne te ñàkk solo wenn weñ wala sarax fekk génnut doo am jàmm waxumaa loxo bi métti waxumaa wànnent waxumaa soj waa ki dox sa digganteeg yooyu ba tax nga tal ko boo ko talul rek gore woo xam nga jaamu yàlla ngir xam ni yàlla yàlla kooku beneen affaire la waaye jaamu yàlla ngir gor waa ni ma yàlla def dama war a gar war a jaamu ko temps bi mu la may wér gim la may moyen gim may ba nga tala toog di def leneen lu ne te bu génne woon ceew loolu rek musiba dal ñun ñuy jombut kenn ci na mos naa mu sibur moom sibur kese nga xam ne fan yoo ko xësee mu saalit nga keneen sawat saalit sëñ bi ko fexe ba nga mucc ca boo koy ma ak lenn doos ko moo tax na suñu xol fees ak suñu borom tabaraka taala wërsëgu àdduna ak colog àdduna ak li ci biir yëpp nga fa ko teg ko sa loxo yi rek soo ko waree jariñoo jariñoo